daf ne ci loxoom la nekk mooy seet ku ko soow mu tibb ca jox ko waaye ku mu ca jox dara jox na ko loo xam ne ku ko amut ni moom moo la ko gën le kon jullit bu nekk lu yàlla ne moo ko yor di ko joxe war naa dox wuti ko ndax yàlla bu joxañee ku fa jëm moo lay gatandu ci lu gaaw yu'til xikmata man yashaa wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kathiran wa ma yadakkaru illa ulul albaab xikma bari na lool lu koy firi waaye dama cay àbbu damay àbbu tey ñaari baat wolof yoo xam ne ku ci nekk war na caa farlu ba fës ca muy li ñuy wax ñor ak fendi nan diw ko ñor xom la woon li ëpp nag ba lañ ko waxal nit fekk bàyyi na fi xaw ma xamoon na ko wala xamu ko woon waaye amatul njariñ ca moom xanaa bu dee am njariñ de ñi ne amal njariñ mooy ñu xool fam jaaroon bañ ne kooku ku ñor xomm la woon wala ku fendi la woon ñu jéem faa jaar bu ñu ko tënkee daal ñor wala fendi mooy lu ci nekk boo ko yoreew bu loo yàlla digalee ne tegal ma ko fee nga tegal ko ko fa waaye jaam yi it bu ñu la dénkee loo xam ne dañ na la tegal ñu ko fële wala yóbbul ñu ko barab sàngam ne nga fexe fexe ba ñépp xam ne fañ fa ko yóbbul woon fañ la ko yóbbuloo woon yóbbu nga ko fa loolu nag misaal la waaye kenn ku nekk ab jëflanteem ak jaami yàlla yi ak ñor war na caa feeñ ak feeñ nga war na caa feeñ euh, mooy lu ci nekk nga jox ko xàqam soo dee waaj ngir julli ci waajtaay wacca war yépp nga jox ko xàqam soo dee jàng alxuraan noona dem na sax boo dee tukki tukki boo xam ne bu dagan la it boo ca bañ a sonn da koy jox xàqam waaye it kenn ku ci nekk la ko yàlla jox it nga nangul ko ko su boobaa añaan toxoon na kañaan toxoon na waaye bokk yi fen di ak ñor ba ci ëpp solo mooy jaam bi xam digganteem ak boroomam xam ne yàlla moo ko bind moo ko fi indi moo ko fi jële moo koy àtte ëllëg te teg na fa yaari kër leeralal ko ko su boobaa mu xam ba mu cay tàmm fen di nag ak ñor kum dal mooy da ngay tànn ba gënal yàlla ku ko tànn jannaatun tajri min tahtiha al-anhaar yenn xamee digganteem ak yàlla ak li yàlla doon ci moom dana xam moom li doon ci yàlla yàlla moo ko moom moo ko sañ sant moo ko sañ tere ab jaamam la boo xam ne jëfe rek moo ko war bu ndigal jibee bàyyi rek moo ko war bu tere jibee waaye nag loola du mën a wér kese kese jàpp ci yàlla daal yàlla daa am ku mu joxoñ koo xam ne ca lay natt suñu jàpp ci moom nu mu demee mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nangu ne yonent bi daa am ci moom xàq xàq ji mu am ci moom mooy jot na bataaxalab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam coow rek ak lu jamono xat-xat muy fas ci xolam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ne jàkk janoo moom nam janoo ak saxaabaam yam dajaloon jamono fas yéene jël yoonam wii mu tëral teg ca ab tànkam ak lu jamono xat-xat gëm ne yoon wu yonent bi sallallahu alayhi wa li ñuy wax pexe pexe muy sottal ca la tàmbalee ca la yam ndax yàlla mi ko ko joxañ moo xam démb xam tey di xam lay ñëw ëllëg lépp waaye bokk na ci fen bi wala ñor xomm bu lu baax dajee nga mën a jëfandikoo yépp nga seet ba ca gën waaye bokk na ci it su njariñ teewee njariñ loo xam ne ci yow képp lay yem ak njariñ loo xam ne mën naa yaatu nee nga tànn ba gën a yaatu jariñu sa jariñ yàlla si ñeneen waaye loo xam ne ci yow lay tàmbalee yem ci yow képp lu ñu la mën a tudde naan daa fend ak daa ñor dañ koy nax nit dafa war a jiital li ñëpp bokk teg ca njariñul boppam waaye saa yu yaar yi yëf taxawee loo xam ne lii dañ ne yàllaa ko digle waajib la ab jullit mënu koo tegg ak loo xam ne dalay neex nga def wala nga bàyyi ki feen gi wala mu ñor xomm day tànn waajib lu ko ca fekk fekk ko ca lu ko ca fekk fekk ko ca su fekkee yaa daje na yit yoo xam ne dara jagu ca ñaar ya benn baaxu ca teñ takk la taxawal na la mënoo ñàkk a jëfe benn bi seetal ba ca gën a néew lool nga jël ko bàyyi fay ci ña ca des ña des waaye bokk na ci ak fendi walla ak ñorit nit kii lu ñu ñëw nettali ko ko ci mbokkum jullitam lu nettali ba ñàng-ñàng mu juunu juunu mu xool na yàlla yàlla nga koy gis te suusural na ko kooku mooy ci fenn koo xam ne lu ñu ko mën a wax ci day xam ne yàlla ko gën a xam te yàlla dana cell bu ko ne du suutural moroomam noonu yi xam ne yàllaa nga gis lépp kenn du wax fi kenn leen waaye moom moom itam ki fendi wala mu ñor xomm su demee ba juum suñ ko nee dangaa juumit na xam ne njuumte moom ab yónent daal la ci yàlla musal ak ak yi euh, asmatullah moom ci ab yónent la yem ak malaayika malaayika moom amut tànn amutu bañ moom faa <clears throat> laa yaasuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna maa yumaruun yonent yi it yàlla dafa liggéey ci ñoom loo xam ne xamuñu def lu dul la yàlla dig duñ ko sax xalaat ba cër yi di ko jafe mooy asma maasum waaye ku dul ñoom nag ku dul ñoom nag léeg-léeg am xelam mën naa dang daay jëm fenn waaye su boobaa ñam ca war a waxal bu ñu ko yëgee ba wax ko ca it na ko jële anamuk lay rek ad diinu an nasiha mu wàññi te bañ caa nuur wala ñey seet la ko neex rek naa ko diw xawma lum la teg damaa defe ne daa atunut li nga yanal da ko mënut da ko mënut te moo ne lii ñu lay wax kenn musu ko fa musuñ ko fee def kenn waaye booba jamono melagul ne mel jamono moo ëpp kutam fi ki fende wala mu ñor xomb saa bu ñu ko nee lii warul si ko def xam na ne wurasi ko def njuumte la na teggi tànkam fas yéene kenn dutu ko ca seen waaye bokk yi ki ñor xom mooy ki nga xam ne suy jëf lu mën a jëf yàlla rek kay tax du ca séet du ca séentu ku ko tagg walla ku ko xalam du séentu ku mer walla ku ca bëgg loolu nag su ma ko gënee tënk te xamaguñ loolu fu muy mujj moo ci fan yi ñu weesu am na koo xam ne dañ koo dendaleel mu war a tànn lu yàlla tere ak lu yàlla digle mu tànn la yàlla digle gis ngeen mbokk yi jëmm jooju ak ñi mel ni moom man naa am ñu bari ñi ñii dañuy fés ñii duñu fés ñooñu ñoo ko ci ñaanal yàgg ak wér ñooñu danga ko jàpp waaye koo xam na léeg-léeg luñ tere na fànn nga gis ko xam ko gëm ba nga ànd bu fekkee mën nga caa wax dara war nga caa wax mën nga caa wax ñu teggi seen tànk walla mën nga caa wax ñu bàyyi soo nee cell da nga ànd waaye jëmm ji dañ koo tànn lool def lu yàlla bañ ak lu yàlla digle mu tànn la yàlla digle ku fen dee noonu yàlla na ko yàlla defal mujj gu rafet ku ñor xom nga noonu xam na ne lañ koy tànn loo luñ ko ca mën a dikk bis bu yàlla di jël ak ruuxam kenn ca ñooña du ko fekk bis bu ñu koy sang kenn ca ñooña du ko fekk bis bu ñu koy dugal ci am pax moo xam ne duutu ca génn kenn ci ñooñu du ko fekk saa bu ñu cay sotti suuf tàng naag sedd naa ca yem kenn ci ñoom du ko fekk waaye saa bu ñu nee wërëñ ba a koy laaj laaj dikk rëg-rëg jaag tiitaay nga jam àndal kenn du ko fekk si ñoom waaye alal du ñu ko ci mën a digg fi la koy bàyyi ndax alal lu mën a alale jërut mooy yàlla jërut xaaju ko jar nu muy mujj jal ko rek di ko sédd am na ñu say am ñoo xam ne xamuñ noo ko amee buñ ca jotee lu leen neex def ndax ñoo ko moom buñ ca defee lu baax yàlla mën na la ca sédd ndax yaa ko fa bàyyi waaye buñ ci defee safarit duñ la ci ëppale ndax yaa ko fa bàyyi woon kon nguur soosu jàngale na ne ku amoon njaboot yar leen ci pas-pas bu wér yar leen ci diine te def ci ñoom ak way ba ëllëg si bi fu ñu demit kenn du leen mën a soppi kenn du leen mën a soppi dara du leen mën a soppi waaye wanewaat na it ci ñi nga xam ne dañoo jiite lislaam ne fu njaboot gi mën nekk ci adduna bi lu mu yaatu yaatu sax njaboot lañ li ñuy tudd ginnaaw ñu ngi koy tuddoo ngay nangu rek sa njaboot lañ war na bala ñoo génn di dem ñu defal leen ab nattu ixtibaar ba xam kii mën naa dem waaw wala de ndax bu alal teewee lu mu leen di jaral ndax bu ndigal suñu borom teewee ay tereem teew lu mu leen di jaral seenu wét ak seen wéttif lu mu leen di loolu waru la woo xam du leen wàcc fu nit jaboote nit loola maa ngi te aw noddam xawma ñuy ak njaboot xawma ñu fu mbokk waaye jaarale nañ ko ci yoon yoon woo xam ne wéeti wétti ko la ca yamala yàlla na ko yàlla may fan wu gudd waaye bokk yi ñu xam ne jaaruwaay yooyu nit ñi mën na xumb di la wétti waaye bu ñu ànd ak yow foofu gis nga nit bu fi jógee xool boobu muy xool yàlla rekk xam lu mu doon waaye kenn du ko xool di wàññi koy xoolaat nit ñi ku ko xool ku ko xas ba xool dootoo wàññi te du mën a wax waaye xool leen yenn boroom kër yi kër goo xam ne bu ñu la toogal doo ñemee toog ci suuf doo ñemee toog ci kaw bokk yi bu rut ngay root bu róoga di root buñ porte plainte kenn xam nañ ko ko def ku mu xam nañ ko ñëpp ko tey ñëpp ñoo ko tey nañ bal ma ci baat bu ngang baat bu nga des bi ko def mooy innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun nu ñu koy def wàcce ko lalam ba su faatoo amee waajtaay sax bala mu caa àgg ñu wàcc ko waaye suñu xëyee gis mu def noonu la ñuy jëkk def mooy wàcc ko génne ko kër ga dem feral ko ci lu mel ne loolu ñu toog ci buntu kër yi duñ ko sànge malaan yu baax yi gën ñu naan sàngoo duñ duñ duñ seen yi si gën ñu sànge kooku déedéet ndax yooyee am na ñu ko bàyyi xel bu xawee guddi ñu dugal ko ci benn genn kees koo xam ne ku doon dund sax bu ñu ko ci defee mën naa faatu ndax sedd bu metti tax du sañ a bañ daal di ko ci tëj dem ñeneen la ñuy waxal waaye doon tuddoon moom moom foofu nag bokk yi ku ko du xalaat loolu neex na nga ko def ñu tëral ko ci kanam ñépp ñoo xam ne suñ koo gis wala dañ ko war a dégg mu dellu tuddaat ci aw dénk kese ci koo xam ne matelas ba mu daan tëdd nooyaay ba jéggi na dayoo yaatuwaay ba jéggi na dayoo Sëriñ Abdou Khadir si jullikaay bi nga ana diw xam ne ko ci mbooloo te ku ràññi woon la ci ay jamono alañ jóor kebe dana ana ko ci jóor kebe kooku nag wuute naag ñu bari ndax moom kat ay waaraamam mi ngi Tuuba ay waaraamam mi ngi Tuuba mi ngi Sénégal bàyyi na fi lis mën a waxtaan waaye bokk yi bu ñu koy fab di yóbbu jaar nañ ci ay yoon jaaraat ci waaye saa xew xew jamono bu ne mel amee dañoo war a fàttaliku ne dañoo war a fàttaliku fa ñuy mujj fu mu doon gis nga bu ñu koy yóbbu waxtaan yooyu lu mu bari bari dañ cay seet boo xam ne dana ca mën a tàll taamutuñ ci ba gën a nooy taamutuñ ci ba gën a ba gën a jafeñ jëm gis nga bu ñu koy dugal ci paxam ah léeg-léeg nag ay nit di jaamu xëram nga gis ko futtiku te kenn mësoo gis mu dugg ci bàmmeel ne jox leen ma ko ñu jox ko ko mu tërale ko ni muy tërale ñëpp batum day joram gege na la ko suuf koo xam ne gege naa yam képp boo ma saan laaj li muy jar lu bari leen lay wax luñ ko fonk fonk dañu mujj sotti ci suuf rek bokk gi nag jataay boobu ak ya cay topp ak ya cay topp koo xam ne du dem cim xelam mukk lu ko neex na def waaye nag bis bu jant bi fenkee ba sox bis ba nga gën jege si kon bu kenn teel tollale lu yàlla digle ak lu mu tere saa bu diglee kenn digle bàyyi la keneen digle ak ku mën a doon xanaa muy ndigalu suñu borom la mu la jot li waaye su fekkee ci am xel dong la ko teg lànkal lànk wala féet ñaar yépp mën naa ànd ci mbirum man noonu ndax kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn du wut ngërëmul nit ba mooy ca yàlla sëñ bi ne oma xultu man talaba ridwaanal wara bi soxti rabbi fa xumrun zukara xultu wa man talaba ridwan al wara bi suxti rabbihi fa umrun dukara kuy sàkku ngërëmul nit ba nar caa dajeeg merum suñu borom aku sànjam kooke ab dofa nga noonee waxuma la dof yam ci waaye dof bu gëmmentoo nga noonee nit sax bu gëmmentoo yooyu amatutub atte sàkkantumaag kuñ tuddee dof ba nag mu gëmmentu dolli ci yàlla na nu yàlla defal dégg topp te musal mi seytaane ki bakkaar yaxfirullahu lana wa li saa'iril muslimiina amin